defal nañu si ab gëstu bu yaatu tey nag ci xibaar ñuy dalal euh, ki nga xam ne mooy maître Moussa Diop euh, di euh, directeur général bu dakaar Dem Dikk di nag societé nationale bu nga xamee ni que rek moom mooy yëngu ci wàllub dem beek dikk bi ci suñu réew maître Moussa Diop ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li jëm ci wàllub dakaar Dem Dikk. mbokk yi ñu ngi leen gërëm bu baax di leen sant ci tàmm bi ngeen tam seen télévision nationale la RTS ngeen di fi topp xibaar ci njëlbeenu xibaar euh, président de la république jàppale na maire yi ak it ñi nga xam ñoom ñooy jiite euh, daal conseil de département yi nekk ci euh, diwaan yi ay oto yoo nga xamante ne rek dina gën a yombal seen dem ak dikk lu toll pàcc bu njëkk bi lu toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk ñaareelu pàcc bi lu toll ci ñeenti téeméeri oto la waaye nag président ñaax na leen ngir nag ñu bàyyi xel bu baax ci oto bi ñu xam fa ñuy dugg ak fa ñuy génn ngir ñu bañ a nag gaaw a yàq ñu ànd ak Aboubacry Kane ci ni mu ko bëggee woon njiitu réew mi dina teg ci loxo bépp maire ak bépp président conseil départemental ab ndaamar li nag mooy mottali limu oto yi mu jagleel ñi jiite gox yeeg goxaat yi ñeenti téeméeri woto pick-up double yu seen dëgëraay méngoo ak liggéey bi ñuy xaar ci maire yi ak président conseil départemental président Macky di ñaax it ñi ñu ko jegleel ñu taxaw ci toppatoo bi. maire liggéey la boo xam ne liggéey bu jafe la liggéey bu metti la te maire ci dëkk mooy papa mooy yaay mooy dalal mooy lépp te souvent euh, xam nañu ne gox yi ak gox-goxaan yi amuñu doole kon boo buggoon jël oto bu xam ne mu ngi jar quinze millions dix-sept vingt millions bu ko jëlee ci koom-koomu gox ba ah, maire boobu du mën a am bilan. moo waral ñu ne na ko état bi jël jox leen ko waaye bu leen ko joxee nag li ma si sàkku mooy ngeen entretenir ko ndax woto aussi dañ koy toppatoo benn dañ koy jox ko ku ko mën dawal moytu rek ku jóg ñëw dawal wala maire bi ci boppam di dawalal boppam te mën na indi ay gàllankoor ñaareel bi oto dañ koy entretenir dafay am huile day am ndox day am vidange bu waxtu yu jotee suñu ko defee rek mën na yàgg waaye nag loolu laa leen di dënkaane daal di ko wax ministre bi euh, pour ngeen am ay assurance am entretien ci ko defee matériel bi mën a yàgg. ginnaaw ba mu tegee caabi yi ci loxo Abdoulaye Diouf saar di jëwriñ bi ñu dénk gox yéeg goxaat yi ki fi teewal association des maires du Sénégal di rafetlu taxawaayu nguur gi ci seen wet. ñi ngi. gërëm bu baax monsieur le président de la république. di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën jàppale ba yéene bi mu am ci réew mi yàlla mottali ko nekkoon na maire xam na jafe-jafe yi ñu am président xam na am na maire yoo xam ne ci charrette la ñuy war di dem am na maire yoo xam ne ci jakarta la ñuy war di dem am na maire yoo xam ne seen oto chaque deux semaines mu paan kon ci mbaaxam bu yàlla mayee kàttan ba li mu yéene woon mu def ko maire yi wax dëgg yàlla ñi koy sant di ko gërëm parce que mënoon na joxe ay oto waaye dafa joxe ay oto yu mat waaye joxe ay oto yoo xam ne wax dëgg yàlla ku ko gis xam ne yu am qualité la deux cent cinquante yi njëkkoon a jot maire yëpp a ji bëggoon a am yàlla daf matewulul waaye ñi njëkkoon a jot ci yooyu ñu bëri bëgg nañu am ci parce que wax dëgg yàlla yooyu baax na waaye ku ko gis xam ne baax na kon président ñi ngi lay gërëm maire yi Sénégal yëpp ñi ngi lay ñaanal yàlla parce que sa réussite mooy suñu réussite réussite maire yi mooy sa réussite ñi ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla jàppale ba yéene bi nga am ci réew mi am ko ci développement locale à travers l'acte 3 mais surtout renforcement yi nga xam ne da nga yokk koom-koomu maire yi wax dëgg yàlla ñu ngi la ciy sant di la gërëm yaa ngi revaloriser statut maire yi jox nga ñu ay fonds de dotation yoo xam ne wax dëgg yokk na jox ñu oto boo xam ne mën nañ dem di dikk kon li ñu war mooy ñu jàppale population yi comme ni nga koy defee ci biir Sénégal te am nañ yaakaar ne képp ku xam li xam ne wax dëgg yàlla bëgg nga dimbali Sénégalais parce que dimbali maire rek dimbali nga gox ba mu nekk commande ñeenti téeméer woto yi jóge ci société bi di TSE fekk si pàcc bu njëkk ba ndaamar yi war a dimbali bépp maire ak bépp conseil départemental mu amal liggéeyam ba mu mucc ayib may leen itam ñu gën a jege askan wi ñuy jiite. Aboubacry Kane dañu des ak njiitu réew mi président de la république dalal na ki nga xam ne moom mooy euh, euh, commissaire bu Sénégal ci UEMOA di Cheikh Hadjibou Soumaré nekkoon nga xam ne moo jiite woon nag commission bi bëggoon rek feexal boppam ci wàllub liggéey booba tax na euh, mu bëggoon rek tekki ndombal tànkam ci gis-gisu boppam ndax nag 1er décembre la ko waroon def mu dakkal ko laata boobu Cheikh Hadjibou Soumaré nag def na la nga xamante ni rek mooy présenté na démission moom président de la république ñu déglu ko ginnaaw bu mu génnee ci comme ni ma xamee bu ñu ma dénkee dara danaa ci def suma kentu lay kàttan naa ci def privation bu nekk mais bu waxtu jëlee sama décision aussi jotee danaa def tout pour jéem ko jël moo tax bi ma xoolee. suma bopp xool ne liñ ma dénk aussi maa ngi ciy def suma kent laay kattan te xam naa ne fi mu nekk def naa ci li ma mën ci laa ne moo jëlaat suma indépendance sama liberté jot na moo tax mu ñëw jébbal ko ñaari lettre benn lettre bi mooy ma wax ko ne ko sama réew mu amoon confiance ci man euh, nommé ma commissaire du Sénégal à l'UEMOA ma wax ko ne ko loolu ma sama réew dénkoon maa ngi ciy sant suma réew parce que suma réew jox na ma lépp mon éducation et tout alors na ko donc loolu maa ngi koy jébalaat suma réew beneen bi mooy ay président ñoo daje woon ne ma yow lañu am confiance dénk ma ko ma koy doxal ba fii ñu toll te souhaité wu conseil des ministre bii di ñëw au mois de décembre ma di fa dem di fa taxaw moo tax ma ñëw wax ko ne ko jox naa la sama démission ci ñaar yooyu muy ci commissaire wu Sénégal muy ci président wu commission à partir du premier décembre parce que conseil bi peut-être début décembre lay nekk donc premier décembre pour ma mën a jël sama liberté donc loolu la moo taxoon président comme xam na ma euh, comprendre na ma euh, te donc noonu la àdduna doxee nit ku nekk aussi da ngay xam sa bopp. Euh, nit ku nekk da ngay xam ca bopp kàddu yu bàyyi ko ci Cheikh Hadjibou Soumaré li ñu des ak président ba tey ndax nag dafa dalaloon moom it ci ay am audience directeur général bu Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop mu ne woon nag gis njiitu réew mi ngir waxtaan ak moom ci tolluwaayu société bu nga xam dafay yëngu ci wàllu dem beeg dikk ci euh, Sénégal indaale nag nouvelle bu bu bu neex ñi nga xam ñoom ñoo koy jël muy dikkum ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi euh, bis yu yees nga xamante ne dana tax ba mu ubbi fukki ligne ak. ñeent yu yees loolu yëpp buñ ko boole muy fanweeri ligne ak juróom-ñett loolu nekk loo nga xam ne tax ba société bi wuyu ci bëgg-bëggu askan bi ñu déglu ko moom it bu mu génnee ci audience bi. li jëm ci Sénégal dem dikk mooy euh, permettre sénégalais yëpp ñuy mën a am ay bis yuy dem ak dikk ci jàmm ci sécurité ci waxtu ci ponctualité loolu yëpp duñ koy diñu sant yàlla léegi nag euh, bus yi nga xam ni musul am Sénégal parce que depuis indépendance Sénégal ba léegi euh, ci benn projet ñu génnee ñeenti téeméeri bus juróom-ñaar fukk ak juróom muy 475 bus mu ñëw ci benn projet ñu war ko dugal ci réseau bi yëpp Dakar gis ci boppam Sénégal yëpp gis seen bopp mooy le Sénégal dem dikk te bus yooyu ñëw nañu yegg seen ñu fi loolu dafa laajoon ma ñëw de temps en temps rembre compte li nga xam ne mission bi ñu ma dénk parce que nan lay évoluer ak kër gi tamit fu mu toll. fii le 5 octobre bii di ñëw rentrée scolaire yi euh, daañu defar réseau yi ba nga xam ni vraiment boo taxawee ci abri bus di xaar bus fukki minute ak juróom wala ñaar fukki minute nekk bus dina fa fekk si suba si sax je pense que bu teelee ay 7 heures du matin incha allahu rabi daañu def toutes les cinq minutes mën a gis bus mu egsi loolu yëpp dañuy sant yàlla parce que wóo c'était pas évident euh, loolu tax na également président jox nañu ay boobu ñuy commandé bus yi ñu dugal ci bus yi tamit bus yoo xam ni ay handicapé yi dañuy gis seen bopp parce que euh, ñetti bus yoo jëlëb benn bi adapté na pour ñi nga xam ni dañoo ànd ak laago wala amay problème pour dugg ci bus yi loolu yëpp am na. loolu tamit moo tax tey lu ko rendre compte également profité nañu ci euh, wax de façon officielle que daañ ci dimbale dans si affaire carte d'égalité de chances handicapés yi moo tax recrutement yi di ñëw dama koy wax mu leer ci ñëpp ñi nga xam ñoom ñooy njëkk recruter incha allah mooy ñi nga xam ne dañuy souffrir handicap loolu yëpp tax na ñu ngi jóge ci ñaar ñaar fukki ligne ak ñeent nga xam ne moom la Dakar dem di ko doon dawal ba léegi ñu ngi jëm ci fanweer ak juróom-ñett mooy 38 lignes dem ba Gorom ñàkkul rab taw féex dem Rufisque yooyu yëpp am ay lignes interbanlieue pas uniquement banlieue Dakar loolu yëpp pare na te suñu équipe bi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu rafet te bientôt incha allah daañu ñii daañu ci teg seen bët. moom ci wàllu boppam di maître Moussa Diop moom la ñuy dalal ci xibaar yi mooy ganu xibaar yi maître ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant di la di dalal jàmm ci xibaar yi ni nga xibaar bu neex boo nga xamante ni rek Sénégal yëpp moom lañ doon xaar mooy bis yi nga xamante ni rawat na waaye laago yi euh, dina leen soxal waaye nag laataa ñu ko jël mbaat di ngeen leen ci tàggat. waaw ñu leen di gërëm di leen sant madame Boye ci invitation bi ngeen ma euh, lancé ma askan bi leen bu baax. li nga xam ni dañ ciy gërëm d'abord son excellence le président de république parce que projet boo xam ne la nit ñi dana am du am ba tey ñu toog ne bis yëpp dugg si nañ si Sénégal muy ñeenti téeméeri bis juróom-ñaar fukk ak juróom 475 bis te loolu dañ ciy sant yàlla te loolu daf ko def pour uniquement dimbale askan bi ci dem ak ci dikk bi ci dakaar li ko wër mais également ci Sénégal yëpp mooy Sénégal dem dikk boobu ñuy wax. loolu euh, je pense que li nga ci wax am na solo est-ce que daal leen tàggat bu baax xam nga dakaar Dem Dikk dafa nekk société boo xam malgré difficulté yu mu amoon par le passé man ñaari at laa fi def depuis mois de juillet 2014 le président de la République euh, jël confiance am teg ko sur ma modeste personne may def li ma mën parce que ndénkaane la hmm. mais ñu ngi def li ñu mën moo tax kër gaa ngi ne tekk am dal am dal am dal parce que il ñuy waxtaan lu ñu mën a def ñu def ko lu ñu mënul tamit ñu waxtaan ci li mënuñu ko ñu defeere ko hmm. tàggat boobu ci la ñu nekk moo tax recrutement yi di ñëw dañuy def qualité parce que c'est la première fois aussi il faut le rappeler toog nañu lancer appel d'offre mooy jël annonce def ko ci journaux yi ne képp koo xam ni am nga critères yi mën nga ñëw nekk foofu conducteur mm-hmm. képp koo xam nga am nga na critères yi mën nga fa nekk receveur mm-hmm. Euh, defuñu yëfu nëbbunt ñu ngi ko def officiellement ñi ñi ñëw nañu déposé depuis le mois d' avril mai bis yi egsi na incha allah ci ay fan daañu jaar ci recrutement bi d' sax euh, loolu moo tax man mën naa rappeler ne tey parce que le 5 octobre mooy rentrée des classes mhm. euh, war nañu def de sorte que qualité bi primée sur beaucoup de choses loolu ñu ngi ci et incha allah fii le 5 rappelé naa sax les anciens conducteurs mhm. pour wax leen ñu ñi nga demoo retraitant yi en tant que prestataire ñu ñëw euh, gunge xale yi ñu waxal leen aussi luy kër gi di bëgg lu muy bañ ak lépp loo xam ne askan mu ngi xaar pour que vraiment conducteurs yi nekk des conducteurs modèles euh, pour askan bi euh, directeur wax nga ko léegi rentrée baa ngi ñëw xale yi dañ koy soxla ndax élèves yi foo ñuy dem ak di dikk mhm. wante nu ngeen def ba aar seen kaaraange bis yoo xam ne kon bu ñu jaar ñu ko waaw xam nga loolu dañuy sant yàlla mhm. di sant yàlla parce que ñaari at a ngi nii benn cas laa ci xam vraiment bu sérieux mm-hmm. boo xam ni xewoon na devant l'université vous vous souvenez de justice bi jël jël si ay dogal loolu mu ngi derrière mu mais vraiment toj beeg yooyu wàññeeku na mm-hmm. maa ngi ciy remercier vraiment sénégalais yëpp xam ni lii patrimoine national yi alalu askan bi la pour indi fi ay bis yombul mm-hmm. parce que am na réew yoo xam ne ñu ngi fii wër ñu dama lay jël exemple pour Mali amuñu ay sot ak yooyu amuñu ay bus yu mag yi nga xam ni confort bi ci nekk ak vraiment sécurité bi ci nekk euh, amu fa ñooñu ay Sotrama la ñu am ak ay genre car rapide yu vert yooyu. donc bu ñu demee bi président la république ci vision boobu ci PSE. jóg dem ne bëgg naa vraiment yombal dem ak dëkk bi askan bi. jëlee ko fu sore indi ko parce que yombul parce que demuñu rek jëlee bis jënd ko indi ko dañu jël suñuy technicien ñu ne lii lañ ci bëgg lii lañ ci bëgg ay bus yoo xam dañu adapté réalité sénégalaise africaine ñu indi ko te gis nañu bus yi vraiment dëgër nañu confortable nañu te vraiment dans fii vraiment le cinq incha allahu rabbi da ngeen gis ni boo taxawee ci heure de pointe cinq minutes di nekk bis dina la fa fekk. te loolu am na solo donc loolu vraiment sama xel dal na tuuti. ci côté boobu. directeur ah, euh, est-ce que mën nañu am yaakaar ne di ngeen wàññi njëgu ticket yi. loolu tamit dañu war a indi leeral. parce que euh, xaw ma kan man moom ma ñëwee ba léegi. ci leeral laa dëkk. Mhm. am na période boo xam ne ñu ma dégg parce que liggéey mhm. àndul ak yeneen mhm. mais bu demee ba projet bi yëpp pare ba ñu liggéey wàññi wax ju bëri ji moo tax aujourd'hui mën naa expliquer loolu ci côté boobu xam nga Sénégal ci affaire du transport jógee nañu garage du gouvernement jaar par régie de transport du Sénégal RTS ñëw ci Sotrac mu dem ay difficultés financière ñëw ci dakaar dem dikk mu am ay difficultés financières tey peut-être beneen suuf la boo xam ne ñu ngi koy dund te vraiment ñëpp ñu ngi si kontaan comme ni nga ko waxee léegi en introduction Sénégal yëpp li moo tax ñu jóg. lu taxoon société yooyu yëpp suux gestion affaire bopp la certes daan ci def yërmande mais ni ñu waxante dëgg mooy suñu bëggee bis yi di am toutes les vingt minutes fukki minutes ak juróom ñaar fukki minutes nekk wala fukki minutes ak juróom wala juróom minutes nekk. dafa am lu ko fay indi. damay rappeler ni Sénégal Dakar Dem Dikk depuis 1998 temps wu Sotrac tarifam ñaar fukki at nga nii mën naa wax sax siècle bu passé bële la ñu gëj yokk tarif te ñëpp yokk na ci àdduna bi bu ñu nelee rek carburant bi mooy gasoil bi nga xam ne mooy deuxième charge entreprise bi mu ngi doon jar juróom benn fukk ak juróom 325 francs en 1998 te tey doublé na yokk na dafa dokk dafa yokk en double pourtant tarif bi yokkul benn de 150 francs la dafa laaj tamit ñu réajuster tarif yi. mais 150 francs dafa am fu mu jógee ak fu mu yem mais am na yeneen yoo xamante ni. dinaa ci dellu si léegi parce que loolu ñu ngi koy jot fin d'année. Mhm. cest à aujourd'hui bu amee benn panne bu doy waar ci bisu Dakar Dem Dikk. Mhm. te lii ñu jotagum mooy fay salaire yi. Mhm. lii nga xam ne fin d'année li ñu koy jox parce que dinañ dawal leen ci temps ci waxtu bi ligne bi def leen ko tarif bii bu leen ko yokk. fii ngeen di yem fa chauffeur bi ñu koy fay gasoil bi ñu koy jënd bu ñu ko totalisé yëpp li ñuy naan état bi. lii lañ ci def ñu ne ñu daal leen ko remboursé mooy compensation financière kooku si at bi bu dee rek lañ koy indi. te loolu bu tardé day def problème. donc ñun soxla nañu daal xoolaat mbir mi bu baax waxtaan waxtaan la laaj nag. xam nga sénégalais yi moom li ñu waxante dëgg. boo nee yokk rek ñun la déet. même bu baaxee si ñoom di la nee déet. Mm. waaye nag bu ñu bëggee bis fukki minute juróom bu nekk di romb ñu bañ a taxaw ci naaj bi dëkk boo gis dafa am loolu am na dëkk yoo xam ne comme France parce nekkoon ñaar fukki du ñu toog sax dinaa ay augmentation ay diminution at bu nekk automatiquement avec l'indice du coût de la consommation day yokk avec un pourcentage boo xam ne automatique donc loolu Sénégal man bëgg naa leen bëggal naa leen Sénégal tamit président loolu leen bëggal bis mu am bu pièces yi yàqoo ñu mën ko jënd léegi léegi duñu xaar fin d'année ci compensation bi te loolu dafa laaj ñu xoolaat tuuti ñaar fukki après kenn mësu ko yokk te xam ngeen ni tarif social la ñuy def mm. Dakar Dem Dikk seen tarif moo gën a tuuti li nga xam ne waaye bu gën wàññeeku rek mu baax maître kontaan nañu mais dañu bëggoon rek boo doon am benn message booy jox ñi nga xam ñooy jël Dakar Dem Dem Dikk yi ak ñi nga xam ñoom ñooy sànni xeer di toj kaar lan nga leen di wax may lancé mooy ñu xam ni Dakar dem dëkk patrimoine national la ñu ngi ko bind ci buntu yi nag. ñëpp ñu ngi koy gis. xam naa ne boo jëloon xeer sax ba sa bopp di métti nga bëgg ko toj bis bi boo liiree di nga sa bopp. mais du ñëpp mais du ñëpp mën a liir. fa laa jëm. Mhm. am na ñu ngi koy xalaat xool ban formule la ñuy am. Mhm. am na ñoo xam ni ay association ñëw nañu ñu ngi waxtaan parce que ñoom ñoo war a dem xool yi ñëpp. étudiants yeeg wax leen ni daal lii seen affaire la parce que bu bis manqué nga dégg leen. Mhm. bu bis euh, amee nga fekk defar na amatul. loolu tamit ni ñuy waxante dëgg dëkk boo xam ni la benn bopp la te vraiment dañu war a diisoo waxtaan mais xam ne lii patrimoine national la affaire askan bi la. Mhm. waaye dama bëgg a profiter de l'occasion également ci loo xam ni projet wu chef de l'État la woon. Mhm. mu nekk intérêt sénégalais yëpp. dafa mës a jóg ne man gëm naa ni Sénégal yëmul Dakar. li ñu si war a boole askan bi yëpp ñu nekk ci kaw gi région yi Saint-Louis Kaolack yooyu yëpp mu lancé loo xam ni aujourd'hui moom la ngi tuddee le Sénégal dem dikk mm-hmm. projet boobu lu gën a metti mu ngi derrière nous mooy bis yi ñëw bis yi dugg nañu Sénégal ñu ngi fi ay bis yoo xam ni musul am Sénégal parce que bis yu climatisé la yoo xam ne di nga ko dee à la disposition askan bi képp koo xam ni mën nga am nga passe bi ñu dem je pense que confort boobu régularité bu muy am je ponctualité sax lay wax parce que day jóg waxtu di dem waxtu bu feesee feesul day dem c'est pas comme horaire yi beneen bi mooy daañu respecter lépp loo xam ni si kaaraange sécurité routière bi parce am na solo y a trop d'accident beneen bi mooy duñu xaar ba tabaski jot gàmmu jot màggal jot ñu ne dañuy yokk paas yi jël population bi en otage. Mm-hmm. loolu dañ ko war a bàyyi. Mm-hmm. ñun tarifu janvier mooy nekk tarifu décembre. Mm-hmm. te bu xase bi commencé Sénégal dem dikk boobu fii ak weer ak genn parce que ñu ngi ciy liggéey bu baax. bis yi ñëw na te incha allah fii ak fan defe naa le président de la dina ñëw inauguré ko. daañu dégg lu ñu ciy wax. ñun daañu def suñu kéemtalaay kattan pour yore ko yore bu rafet. parce que askan bi moo moo ñu fi teg. nous sommes jërëjëf euh, oh. directeur mu doon nag euh, maître Moussa Diop euh, di directeur général bu Dakar Dem Dikk ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. gone cogère yi ñoom nag amoon nañu seen ndaje buy yaatu bu nga xamante ne rek leen tax a jóg bokk na ci xalaat ci réalisation président de la république rawat na ci jongante politique yi ñu dëgmal ñu ngi ko doon amal ci teewaayu njiitu gouvernement bi ñu ànd sax Mama Moussa Niang liggéey bi nga xam ne président de la république liggéey na ko boobu ak léegi mu nekk ci boppu réew mi ndaw ndawu APR rafetlu nañ ko bu baax a baax rawatina itam ndaw yi nekk ci région de Dakar. président Macky Sall moo ak moom lañu gis la nouvelle carte universitaire di yokk ci la ñu gisee césarienne bi nga xam ne tey boo demee ci clinique 800000 boo ko amul. duñ la césarienne président Macky ne loolu dama koy joxe gratuitement état da koy jël en charge ci jigéen boo xam ne tollu nga ci loolu. des na ay domaines agricoles communautaires nga xam ne day dimbale ndaw ñi ñoom ñu ñaq mais ñu jariñu mën naa ci lim ay ANPEJ ay FONGIP ay BND e, mais aussi mën naa ci lim yeneen structure yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi liggéey ak seen xarañ pour dimbale ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. ci biir forum bi nga xam ne moom la ñu amal wax nañu seen liggéey mooy bëgg folaat président de la république waaye it bëgg mu am lu takku ci député atum 2017. mën naa ne képp kuy sénégalais nekk fii ak képp kuy étranger koo xam ne yaa ngi dund ci gox bi xam nga ne Sénégal démb du Sénégalu tey ndax fi ko président Macky la jëlee ak fu mu ko yóbbu ñëpp xam nañ ne amul kuy dugg ci kër te waxul ne gis naa yokkute ci nguuru président Macky Sall. place ndaw ñi ci fu ñu jëm dafa leer. dañuy dem ci ñaari échéance première échéance bi mooy élection législative foofu ñu fas yéene taxaw partout dans les quarante cinq départements du Sénégal ak diaspora pour président Macky Sall am ndam ci loolu ñu jëm. wax nañu itam ne mbooloo mooy doole moo tax ñu ngi woo ñëpp ci biir mbooloo loolu nag ministre d'État Mbaye Ndiaye xamle na ko waaye it premier ministre woote na ngir nag ndaw yi. gën a fonk li nga xam ni moom la ñuy liggéey ci parti bi te xam ni itam ñoom am nañ fi cër gu mat sëkk. mooy bi mois de mai ak euh, février woy wi benn lay doon tawa caacaa rek force bu dal ne bu mel ne Cojer bu ko am waroo ragal. bennoo Ngor profitoo na moom it ci biir forum bi daal wax ni nag léegi dugg si na biir APR. Mama Moussa Niang jërëjëf au conseil du dialogue social ñoom nag taxaw nañu seen dans ñaareelu ndaje di waajal nag ubbite lekkool gi ñu nag dala si ñi xam xamante ay kàngam la yëngu ci wàllu njàng mekk njàngale mi li ko waral nag bokk na ci guvernement bi syndicat bi ak it way juru gone yi daje ngeen ñu mën a fexe ba année bi nekk pour bu am dal Elimane Ndaw ñi ngànk njàngale bi ñoo toog si benn table gouvernement bi syndicat yi ak waajuru ndongo yi lii nag pour indi ay pexe ngir njàng bi bañ a am benn jeexi jaaxa ren ay liggéey yu ñu lal nag ñu koy woowee session pré-rentrée 2016 au conseil du dialogue social nag moo ko jiite. nous allons mesurer avec eux, avec les représentants des ministères au niveau le plus dinañu natt ak ñoom fu liggéeyu nguur gi def toll su amee lu des nag ñu xool nu ñuy def ba saafara ko. dire que tout saytu itam rëq yi ba xam lu tax nguur gi matalul lu mu digle woon. Le gouvernement n'a pas eu à exécuter ça et à quoi le gouvernement s'engage. gouvernement bu Sénégal bëgg na bay waaram bu baax ci ndaje bi. loo xam ne lii lu am solo la jafe-jafe yi nag dafa metti du Sénégal rek problème yi dafa metti waaye dañoo bëgg buñ ci génnee daal euh, école bi mën a nekk école boo xam ne dañ fay jàng ci dal ak teey ba lépp li nga xam ne élèves yi aussi seeni droit la muy droit à l'éducation ñu mën koo am. syndicat yu nekk ci njàng bi nag bëgg nañ at bi jaar yoon waaye seen yi bëgg-bëgg ñu ngi wëy di laaj mu saafarawu bu ñu bëggee jàmm ci école bi parce que jàmm kenn du ko décréter. parce que doon na jàmm ba pare mu am injustice respecté wuñu accord parce que dañuy wax ni ennemi jàmm mooy injustice kon nag tey bu ñu wootee yàgg nañu waxtaan yàgg nañu diisoo yàgg nañu ko tey lu am solo mooy lépp loo xam ne waxtaanee nañ ko bind ko xaatim ko nañu indil ay réponses yu précises. at yi ñu génn njàng bi am na ay rëkk-rëkk yu bari loolu nag tax na ba résultat yi demeewul noonu yaakaar bu bëri la ndongo yi ak seeni waajur am si ndaje mii ngir ñu dem si at bu amul benn sikki sàkka Elimane Ndaw ay bés rek moo des euh, ci vacances yi ci diwaanu Matam ñoom ñoo ko jagaleel des du vacances yooyu euh, di set setal ecole euh, yi ngir nag gone yi bu ñu ñëwee fekk école yi set wecc um kalsum sàll dem na nemmeeku yenn ci école yooyu ayu bés rek des ci ubbitek école bi fii ci Matam nag mu mel ni ñoo ngi koy waajal bu baax ci école yi ñu dem ñu fekk ni ñax mi dindi nañ ko ba pare am na it yoo xam ne ni ñoo ngi tàmbali di bale ci école élémentaire 2 directeur bi di ñu xamal ni lépp yemb na. ñun pare nañu pour accueillir enseignants yi mais également enseignants yi ak directeur bi pare nañu pour accueillir élèves yi le 5 incha allah le 5 dinañu commencer suñu. leçon suñu cours. beneen école bu ñu dem ñu fekk ay maçon di fa a ñaari salle de classe lii nag lu ñu soxla woon la fii ci école bi. ñu koy soxla ñu salle bi yàgg parce que état bi tabax nañu fi ñaar salle yi ñaar salle yi ñaanta at lañu mais dafa may fissure ci bâtiment bi bâtiment bi dafa présente un risque finalement préfet bi nañ génne élèves mais heureusement que l'état encore ñu war na dimb dimbali ñu ren pour ñu mën a am ñeneen salle bees. inspecteur d'académie ànd rek ak ñi muy ndool di def rek tuuru école yi ngir rek xool fan la mbir yi toll ci wàllu waajal bi mesures yi ñu njëkk jël bu ñu jógee ci séminaire rentrée yi ak ministre de l'éducation euh, def ñu sasoon bu ñu demee nañu waxtaan ak euh, communauté yi ñu waxtaan ak jàngalekat yi waxtaan ak chef de circonscription yi pour que véritablement élève yi mën bu ñu delloo école le cinq ñu ñëw fekk environnement bi nekk environnement bu set comme ni nga ko constaté fii ensuite euh, parent yi ak acteur yëpp vraiment booloo seen loxo nekk benn pour que véritablement école yi mën a accueillir euh, njàngaan yi loolu foog naa ne euh, bi ñu ñëwee bind nañu IEF yi bind proviseurs yi nee leen véritablement ñu ngi xaar ci ñoom ñu jël disposition yi pour que écoles yi set ubbi tey jàng tey loolee nag lu nguur bi bëgg fii nag ci Matam inspecteur d'académie bi di ñu waxal ni jël nañu matukaay yépp ngir li ni mën a am. envoyé na benn note circulaire ne le 3 mooy rentrée officielle bu ñu demee ba di jot képp koo xam ne dënk nañ la kuréelu njàng. ngay directeur école élémentaire ngay principal de collège ngay proviseur ngay directeur de centre de formation professionnelle nañ ma envoyé la liste exhaustive des personnes des états de présence ci loolu aussi maa ngi véritablement woo jàngalekat yi wax leen ne xale yi dañu am ay droit ñu war a saafanteeg droit yooyu mu que ñu tolérer école di ubbi jàngalekat yi di prolonger ay vacances loolu vraiment foog naa ne jàngalekat yi sax jarul sax ñu leen koy wax xam nañu ko. fii nag ci Matam lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti école tabax nañ ko fi ci programme boobu ñuy wax PATEP. loolu ndax nguur gi da koo def ngir rek mën a wàññi bu baax abri provisoire yi nga xam